ñëw tey siyaar si sëriñ bi ndax ku ne xam na ne lépp lu ñuy tàmbali lu nekk ñun dañuy ñëw ci sëriñ bi sàkku si ñaan laaj si ndigal ndax ñaari mandat yi ñu def yëpp dama daa ñëw fii ci sëriñ bi waxtaan ak moom jël ay engagement nag ni bu ma yàlla mayee ma dem assemblée nationale dañu fas yéene teewal population bu tiin bu Touba diin ma teewal tamit jullit yëpp yàlla dogal noonu nga xam ne noonu lañ defoon engagement ci ñaari mandat yi jàll bii yoon nag dañoo ñëwaat jëlaat engagement ak ñi nga xam ne si département bi wax sëriñ bi ni ko mel nu man Cheikh Abdou Bara Dolly day maa fa daan nekk di teewal sëriñ bi di teewal Touba waaye ren dañoo bëgg yeneen ni Cheikh Abdou Bara comme ni nga ko limee léegi bokk ci coalition jàmm ak njariñ bi nga xamante ni sëriñ bi si boppam moo joxe tur bi xam naa ne ñu baree bari xamuñu loolu si sëriñ taxaa lañ jëlee turu jàmm ak njariñ loolu moo tax Amadou Ba wut tur woowu ñun ñëpp ñu ànd si rafetlu ko ndax lépp loo xam ne jóge ñu sëriñ bi lu barkeel lay doon loolu moo waral coalition bi Amadou Ba jiite ko ñu ne ñun kan ñi nga xam ne ñoo des département bi bala ñoo xaar ay Amadou mu di fi ñëw en tant que ñu bokk ci coalition bi nekk ci list bi ak ñi si nekkul ñëpp ñu àndandoo ñëw ci sëriñ Mountakha mi nga xam mooy sëriñ Touba sàkku si moom ñaan laaj si ndigal ngir que bala ñoo tàmbali liggéey bi ci ñu ko sëriñ bi diglee lépp tënku si ak taalibe ak dal sëriñ bi jox ñu ndigal ñaanal ñu ñu mën a dem nag waxtaan ak taalibe yi waxtaan ak ñëpp ñoo xam ñoo si ne département bi ngir ko fas yéene nag ñu wate li nga xamante ni mooy coalition jàmm ak njariñ ngir ñu am maturité ngir mën a joyantiwaat li nga xamante ni maanaam mooy Sénégal te ku ne xam ne réew mi métti na képp koo xam yaa ngi nekk di joxe dépense xam nga ni Sénégal métti na képp koo xam yaa ngi xam yaa ngi fay courant xam nga ni Sénégal métti na fii may wax a yow bu nee ba carotte di jar maanaam 300 francs benn carotte kilo bi 3000 xam nga Sénégal métti na bu nee tey ba boo jëndee courant 20 000 francs du diir une semaine xam nga Sénégal métti na bu nee ba ndox mu yokk xam nga Sénégal métti na bu nee tey ba nga xamante ñoo doon liggéey ñu leen di dàq si seen liggéey xam nga ne Sénégal métti na bu nu mettee ba nga xamante ni ba weer dee mun ñoo fay salaire xam nga ni Sénégal métti na te loolu nag ba fekkente ni gàttandiwuñ ko ci kanam nii day gën a jëm kanam te méttit boobu nag lañ bëgg fexe gar ba nga xamante ni tey lool du agsi loolu moo tax ak coalition bi ñu yor Amadou Ba jiite ko ñu fexe ba laaj ko majorité ngir ñu jox ñu ko ngir ñu mën a joyanti Sénégal tegaat ko delloo ko Serigne Touba rawati nag kaddu ñaaw yi nga xamante mi ngi jóge ci Omar Diagne nga xam ne ku ne xam ne ni Omar Diagne état bi moo ko far fat ko ba pare encouragé ko si wax ju ñaaw jooju muy wax jëme ko ci Touba ak kilifa diine yi ñun nag en tant que ku am Serigne Touba en tant que koo xam taalibi Serigne Touba nga Serigne Touba mënut a jóg di fayul bopp mais ñun taalibi Serigne Touba yi ñoo war a yor suñu carte fayul suñu bopp ngir kaddu yooyu nga xamante Omar Diagne njëkkati na ko wax ni jumaay Touba ji am na signe franc wax ni li Serigne Touba bind dañ a ngay nekk koo xam branchement de capitaux ngay def kooku yaakaar naa ñun waa Touba bu ndee ay gor nekk ay taalibi Serigne Touba yoon def na jaaru na ñu wane suñ bopp ak suñ taxawaay wane ni kat mbañam kanam borom moo koy fajal boppam ma jàpp ni képp koo xamante ne yaa ngi si Touba boo wotelee Pastef yaa ngi xeex si Ahmad Bamba yaa ngi dooleel kuy xeex sëñ Touba yaa ngi dooleel kuy wax wax ju kilifa diine yaa ngi dooleel nguur jigéen loolu man maay la ko wax te mooy li am parce boo ko woteelee ku mu àndal ko nekk yaa ngi toloore nguur jigéen te am na ay yoo xam dugal nañ ko fa muy loi boo xam criminal si nguur jigéen bi déposé naa ko peine de mort bi naa ko offense au chef religieux bi nga xamante ni tey war nañu koo déposé ngir kilifa diine yi amaat seen jàmm ñu mën leen a aar comme ni def offense au chef l'état déposé naa ko fa loolu yëpp bëgg nañ ko mottali ànd ko ñii nga xam ne ay gor lan ñu bokk nekk liste bi te kenn ku nekk si ñoom ñi mën ngaa taxaw sama place mën naa taxaw sa place fas yéene ànd ak ñoom campagne lañ ñoom ñu dem nekk juróomi député yi war a jóge si département bi teewal Sëriñ Tuubaa dignement parce que yeneen député yi fi nekkoon nag bu ñu demee parti lañ fay nekkal parce que tey bi ñu xasee sëñ Touba amul benn député bu ne si département bi nekk si Pastef wala keneen def jël sëñ Touba défense si pincu ndaw réew si mbirum si dëkk bi duñ ko def daan wër nag nuñ ko mën a wëree waxtaan li ñu war a waxtaanal jàppale askan wi ci ay bale set setal dëkk bi pour que ñu mën buñ sa àggee ñu mën a watu coalition jàmm ak njariñ bi nga xam président Amadou Ba moo ko jëte